conférence thème coronavirus ndax dafa am lu ñu ci nëbb ak lu ñu mën a wax waxi mbas mi dafay wéy di des di doon yitte ñëpp donte am nañu ci ciy tendefal di ko tànqamlu waaye bu ñu demee ci Sénégal ba xalif général Kuli Tidiane jël maskam def ci kanamam ba mënuñu ko xàmmee ba ñu koy bloqué fële ci l'hôpital principal euh, fa ñu doon nangoo néew Mansour Kama mi ñu duppee woy juróom wu tedd wa di Serigne Mansour Sy Bal xaw mi nga gis xalif général Kuli Murit di kaalaw bàyyi gëtam dong ngay seen mu teg ci jukki ci jibaam lu toll ci ñaari téeméeri million def ko ci xeex bi ñeel corona njiitu Moustarchidine wala Moustarchidaat di Serigne Moustapha Sy ñi naan wopp si dal na ko ay taalibeem di ko wetti ba ñu yegg ci ba ñu naan am nañu caxat caxate yéen kaay ba ko bind di les échos tojate seen i machine ma fi nekk nag di lim turi kilifa yi mbas mi yóbbu ndax lu ne fàng kenn du ko jeex fu ñu toll di dégg Serigne Babacar Sy Mansour di sàkku ci président de la république ak ministre de la santé ñu wax askan wi dëgg dëgg gi la ñuy sàkku xeet wi xam ko te ba fii furaas ni am na lu ñu ñuy nëpp te nëpp gi li mu mën a jur musiba la ndax mooy ñii dañuy gëm feebar bi ñële di ko di te bu yàggee ñëpp ci loru bu boobaa lu raw mbas moo naan xës ci suñu kaw te yéen ñu koy yóbbee yàlla nañ ci yàlla musal amin amin ak ñàkkin wolof njaay ne pas-pas moo koy àtte ci jamono ji ñu toll tey Covid 19 dikk wër àddina bi wërngal këpp réew mu la ci ëpp pas-pas ak dëggu moo la ciy gën ay résultat te fi ñu toll tey ci Sénégal li koy firndeel ci ne njëkk a fecc taxuta mujjee géew Euh, ba ñu fi dooree paj mi euh, ci weeru avril jàpp mais ñëpp ngi doon bàkku ba ci njiitu réew mi ci naan sunu réew ni mu ci doxalee jombe na kéemtaan la maanaam waaye fi ñu toll tey ba réewu Afrique yu bari mën a naawal seen i roppalaan wutali tugal ñun mu ñu tëcc li muy tekki bari na te day dellu ci li xalif général bi di sàkku te waa cadre unitaire bi ëmb syndicat waa santé bi di ko sàkku ñoom itam te moo di nañu wax askan wi dëgg fu Union européenne mise à jour rek génne ci Sénégal kon nga xam ni ñoom waa Union européenne xam nañ lu ñu xamul ñu ñu nekk fii ci réew mi Maroc Tunisie Rwanda la ñu ubbil seen i bunt suñu réew toog di xaar wax leen ñu lu tax te yàlla tax ku gis lay xew fële ca Sowétas ga ca l'hôpital principal balankaar yi di bagante ak morgue ba bés bu yàlla sàkk ñu jàppoo jaat yi di suulu néew yi metti na te dafay gën a metti ngir yàlla bu leen xaar ba mbas mi ëpp leen loxo ngeen di ñu beesi loxo wasalaam ba beneen conférence